ci ñun acteur public journaliste animateur reporter ñun ku nekk ci ñun ittewoo nga loo xam ne luy defar penc mi la te ñëpp jariñu kon bu ñu gisee loo xam ne safaan wi la itam ah, jaadu na ku ci nekk jóg def itte pour mën a gindi sa moroom kooku tamit mën a gindi keneen balaa maa dugg ci solos euh, li tax ñu daje fi dama bëgg fàttali ni que duñu nangu kenn bëgg a profité ci lii lëmbee réew mi foofu sa Kaolack pour bëgg dugal affaire émotion ba gis naa sax koo xam ne presque dafa xaw a mel ni kuy diw confiture que peinture Euh, ay chocolat góor jigéen ñi kenn mënul fexe ba ne waaw kii ñu taal waruñu koon taal ba pare nag bëgg rafetal li gën a yées ci bàkkaar yi mu di ngóor jigéen nga xam ne yàlla daf ko rëbb rëbb bu leer nañ loolu moom amul kenn ci mën a def loolu euh, euh, mon ami Dame Mbodj di wax layam layam suñu borom moom du layam layam. rawatina que dañu nekk ci dëkk boo xam ne yàlla daf ñu wërsëgalee deux grandes religions révélées ñu bokk benn position ci xaramal goo jigéen mu di la religion musulmane et la religion chrétienne d'ailleurs ce n'est pas hasard boo demee ci injiil bi yonent yàlla instant di bible bi te yàlla jaarale ko ci Jésus Christ nga dem tam ci alxuraanul karim am na taarix boo xam ne ñoom ñoo bokk ni ñu ko nettalee ngir di wane meru yàlla ci bàkkaar bi nga xam ne wala bokk bokk ci yi gën a yées ndéem gënu see yées di wàllum góor jigéen taarix bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk nag moom la suñu mbokk catholique yi tuddee la malédiction de Sodome et de Gomorrhe boo ñëwee ci alxuraan ñu tuddee ko euh, euh, euh, alagu askanu Lóot mu di benn bërëb bu nekk fële ca euh, Moyen-Orient boo xam ne bii si jamono yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima yonent bi la bu bu bu feeñoon 2000 ans avant Jésus-Christ avant yonent yàlla Insa daal di ko yónni ci askanu Lóot ndax suñu boroom ci mbaaxam ak yërmandeem du jóg rek yëkkati yat dafay def yi avertissement mu ne ko demal nga wax ak ñoom ndax ñaawteef yi jéggi na dayoo rawatina askan la woo xam ne ci wàllu débauche wàllu perversion dem nañ ba dañu banaliser sëy góor ak góor dem nañ ba ku fa nekk kilifa chef de canton délégué de quartier te amuloo far bu góor daanaka say moroom yi dañ lay kokkali ne daal yow da nga tardé da nga démodé demoon nañ ci ba da ngay gis un père de famille bu am doom bu góor bu dem ba muskàllaf 18 ans vingt ans nga sëy ak moom c'était banal yont yàlla Ibrahima ñëw def li ko suñu boroom sant maanaam mu artu c'est une longue histoire waaye ci gàttal dañ ko soofantal suñu boroom ba tey dawal yërmande toogaat ak diir daal di yónnee yonent yàlla lóot yonent yàlla lóot nag way juróom bu góor frère la ci yonent yàlla Ibrahima bi ñu jëkkoon yónni avant moom kon yonent yàlla Ibrahima c'est l'oncle paternel da yonent yàlla lóot lóot tam daal di ñëw reconduire le même message ne leen ngóor jigéen gi tar na ci penc mi suñu borom nag du jóg rek indi daan kon ginnaaw sama nijaay sama oncle paternel Ibrahima man mii yonent yàlla Lóot man la yónni pour artu ndax yéen ngi yàq penc mi yéen a ngi défier yàlla ndax yàlla ñaari entité sexuelle la créé góor ak jigéen y de sexe intermédiaire moom tamit ñu soofantal ko suñu boroom ne danaa leen may une dernière chance daal di yónni ñaari malaayika waaye dañoo am apparence humaine ñoom ñu daal di ñëw jubal kër lóot ne ko suñu borom a ñu yónni daal di ko feeñu xamal ko ne ñoom ay malaaka lañu lóot daal di woote si générale bu mag kilifa yëpp a ñëw chef de canton yeeg chef de district yeeg mu ne leen ñii day ñu nga jóge ca leer yu kawe message bi sama nijaay waxoon yonent Yàlla Ibrahima te man ma tollanti ñoom itam si tànk yooyu la ñu ne waaye lii loolu di expliquer ci première rangée bi mu am ci ñaari ponkal yoo xam ne kilifa lañu ci askanu Lóot dégluwuñu li yow Lóot di wax ñu ngi fab seen bët yépp ne ko bàcc ci ñaari malaaka yi dëgg la malaaka yi donte le malaayka lañu waaye dañu taaru rafet ndax leer yu kawe ya nga xam ne fa la ñu jóge rafet mignon ñaari góor yooyu xool leen bay lox des obsédés sexuels jekki mel ni luy jóg riir wuti malaaka yi loot ne leen déet déet déet ñi yàlla leen yónni de s'il le faut ndéem lii lii ngeen bëgg ndéem dafa am loo nam ma ci ñoom man am naa ñaari doomu jànq yu mësul dugg ci néegu sëy jalal na ma ma sacrifier ko jox leen leen waaye ñii bu leen leen laal gars yi ne déedéet ñii rek riir jóg wuti leen foofu la suñu boroom mere daa ne seydinaa Ibrahima mu ne ko labayk Seydina Lóot mu ne ko labayk mu ne génn leen dëkk bi ñii ils sont irrécupérables foofu la yebalee nag euh, Seydina Jibril alayhi salaam mu ñëw firi ay laafam ànd ak soixante-dix mille anges ñu daldi ronu dëkk ba naaw yëkkati ko ba ca kaw dëpp ko dóor ko ci suuf taal ko mu tàkk juróom-ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar fukki bëccëg te li ci doy waar mooy suñu borom ba mu leen di xalak alak na ku def ak ku defu moo tax mu am benn aaya alxuraan bu ko dëggal suñu borom ne wattaqu fitnatan laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa yéen jaam yi moytu leen sama ay mbugal walla sama ay nattu wala sama ay duma wala samay fitna yoo xam ne bu ma koy wàccee ci seen kaw du yem rek ci bopp ña nga xam ne ñoo ko provoqué kon ñun xeex bi ñuy xeex góor jigéen seen légitime du ñu nangu seen mbon tax ñuy wàcce mbugul yàlla ci suñu kaw ba nga xam ne jamono daw na ba ñu egg ci suñu génération yi werante dafa amoon naan est-ce que la malédiction de Sodome et Gomorrhe c'est un wala réalité la mu daal di am benn équipe de télévision franco-allemande bu ñu wax Arte te lii ma leen di nettali yàggul 2014 bi la ku ci bëgg ci yéen nga jox ma sa euh, numéro WhatsApp bu ñu paree ma yónnee la ko ñoom ñu ne hasard amul ni ko Bible bi nettale muy la malédiction de sedom et ak ni ko alxuraan nettale maanaam bi yàlla di toroxal askanu Lóot ni mu nuree ni mu nuroo dafa yéeme kon nañu dem ba localiser site bi fan la woon ñu daal di ànd ak ay archéologue ànd ak ay volcanologue ànd ak ay anthropologue jël carte géographie bu Moyen-Orient daal di def benn expédition nag ak ay chercheurs ànd ak la télévision franco-allemande bi ma leen di wax lii c'est récent 2014 la ku ci bëgg ci yéen ma yónnee la ko dañ doon vérifier ji ndax alak bi yàlla alak askanu loot ndax góor jigéen ndax am na wala am waaye ba ñu eggee ci site bi lan la ñu seetlu d'abord ba ñu tibbee ci suuf si dafa mel ni doomu taal mu mel ni fii safara jaar na fi deuxième constat des dizaines de kilomètres à la ronde gàncax sax troisièmement te ñun ñëpp jàng nañ ko en cours de géographie am na benn bras de mer bu romb foofu naka lañu ko tuddee c'est pas un hasard la mer morte ndax dara du fa dund te ba fa yàlla di wàcc mbugal bii nga xam ne alxuraan nettali na ko bible bi nettali na ko kañ la woon deux mille ans avant Jésus-Christ te ñun ñii nga xam ne ñoo bokk génération fan la ñu toll ci jamono nous sommes en 2023 kon nous sommes en 2023 ans après Jésus-Christ boo ci boolee 2000 ans yële ça fait 4023 ans bi yàlla mbugalee askanu loot te ba tey meru yàlla moo nga fa gàncax mënu fa sax dara mënu fa sax meru yàlla xajul ci doomu adama ba tax na kon texte sacré yi mandargal nos deux grandes religions révélées d'abord ci alxuraan suñu boroom yeesalaat na ay avertissement pour avertir les génération futures wax na ko ci suratul Uhud yeesalaat na ko ci suratul Tawba suratul Ankabut suratul Anfal suratul Anbiya yi fukki fatwa ak juróom benn suñu boroom di ci fàttali na mu alage woon askanu Lóot ndax góor jigéen te am na ci ay saar yoo xam ne toujours day naan yéen jaam yi ndéem am ngeen jom gis ngeen fi ma jaar ak askanu loolu alors nga dem ci suñu mbokku catholique yi ñoom tamit kenn demul ñu des am na seen benn téere bu ñuy wax Lévitique chapitre 22 euh, chapitre 18 verset 22 lan la ko suñu borom wax coucher avec un homme comme on couche avec une femme et une abomination kon loolu foog ñu leeral ko werante bañ a am fa yàlla tegoon tànkam démb ci xaramal góor jigéen tey la gën a tar bu ko defee nag lii xew du gulet ñaate yoon lay góor jigéen dee fii bàmmeel bu mu dem rek ñu rejeté ko ñaata yoon lañu toxal góor jigéen bi euh, euh, nuitamment yóbbu ko ci beneen bàmmeel ñoo ñu rejeté ko du fi gulet waaye nag suñu borom àdduna ci wàllu góor yi jigéen bu dee dafa ne bu euh, pendant muy dund yéen askan wi boo leen amee loo leen di jàmmarloo ak moom pendant muy dund ngeen ko war a def ngeen di ko boycotté di bu leen nuyoo sax bu leen neexee ngeen bañ ko fay bu leen neexee sax bu leen ko jox loxo dégg nga ngeen di xeex ak moom ngir mbonam mu bañ ko wasaare yàq askan bi pendant muy dund la suñu borom wax waaye nee na bu xësee ba dee santul kenn nga di ko sulli rawatina nga di ko tàll te publié naa ci suba ginnaaw bi ma ci defee ay recherche ci sama page Facebook sanga bu tedd Seydina Mohamed ñëw dëggal loolu suñu borom wax muy benn hadis bu ñu jëlee ci imam Abu Daoud sanga bu tedd bi nee na benn mbindeef amul droit di taal moroomu jullitam moroomu mbindeefam lu dul ka nga xam ne moo am sañ-sañ bi mooy ki moom safara moom àjjana mooy safara mooy suñu borom subhanahu wa taala kon nag lii xew lewoon na la ña seen la suñu borom dolli dellu na ni ci chariatul muhammadiya góor jigéen bu génne àdduna xëy na kay li ngeen mën a def waxul ngeen sulli waxul ngeen taal waaye li ngeen mën a def <clears throat> pour askan wi yëpp a xam ne àndu leen ak moom ca na mu daan dunde mooy bu ko benn mbindeef bu am daraja ci umma islamique bi jiite la prière mortuaire bu ko imam bi jiite bu ko naayim bi topp ci imam bi jiite bu ko ulamaaw tafsir yi jiite kon képp ku am dombal tànk ci umma islamique yi charia nee bul ko jiite góor jigéen bu dee waaye waxul ne bu leen ko julle de nee na na ngeen seet ci uma bi ka ca gën a euh, woyof xaftaan ku mel ni Mame Makhtar gi <laughs> alors kooku mën na ko jiite parce que suñu borom buggul ñoom bu ñu génnee àdduna ñu ñu ñu ñu di leen màggal ak di wan ne jox nañ leen importance dañuy wàññi importance bi ñu leen jox à sa à sa plus petite expression loolu suñu borom wax na ko waaye waxul ne na ngeen sulli waxul ne na ngeen taal dafa ne euh, doomu aadama bu xës ba génn àdduna pare na ak yéen jébbal leen ma ko ndax li ci des man maa koy gérer waaye nag tubaab dafa ne il faut guérir la mal par la racine daal di wëlbatiku ne il n'y a pas de fumée sans feu lii yëpp bu amee parce que du gox boobu rek la ñu mës a rejeté góor jigéen ne kenn du ko fi suul am na ci gox yu bari c'est pas la peine ma di leen lim yéen a ngi sur actualité waaye bu kawlax bi li tax mu tar ba ñu ko yamatuñu ci ñuy sulli teg ay pën déet waaye ñu sotti essence taal ko li tax mu tar waa Kaolack dafa am mer bu ñuy yàgg a denc te ba tey réseau ñun ñëpp dund nañ ko ci atum 2015. ndax yàlla dafa dogal suñu mbokku catholique yi ñoom dañu am benn calendrier bu ñuy wax calendrier euh, grégorien ndax fête religieuse catholique yëpp même date bi ba mu amoon daawaataati jéeg daaw jéeg ak ren du changé mardi gras date ba mu tombe woon daaw moom lay tombé ren ascension bu daaw même date que ren euh, fête de morts boobu ñuy wax euh, Toussaint premier novembre lay doon toujours bu ñuy màggal juddu yéen ci yàlla Isa Jésus-Christ c'est toujours le 25 euh, décembre waaye ñun nag c'est différent ñun dañu am un calendrier lunaire qui tourne c'est le calendrier hégirien euh, euh, parce que tabaski bu daaw bokkul ak date bu ren kazalika korité yawmal ashura et cetera alors calendrier lunaire bu julli ji di tourner ci atum 2015 di tourner di tourner ba juddug yonent bi tombé net le vingt 25 décembre bi nga xam ne moom la catholique yi di def Noël di màggal juddu yéen ci yàlla Isa dafa tombé net ñëpp daal ne ah, lii day rafet man sama ay xaritu catholique yu bari woo nañ ma daal ne ah ren day ñoo bokkandoo gàmmu ndax ñun ñu ngi màggal le cinq décembre di célébrer la naissance de Jésus Christ yéen tamit ce cinq décembre 2015 yéen a ngi célébrer la naissance du prophète Mohammed ñëpp rafet ko mu nekk un motif de fierté pour nos deux communautés musulmanes et chrétiennes mu nekk un motif de rapprochement entre les deux communautés confessionnelles ñu ne lii day dana nekk jéego bu mag dans le dialogue interreligieux ñëpp a kontaan lobby homosexuel yi nga xam ne ils ne font rien par hasard daal di profiter sur cette date doublement symbolique organiser onze mariages homosexuels ci école Ibrahima Diouf bu kaw Kaolack loolu tooñ la tooñ la ñoo ko tey choisir ñu date bi par hasard maa ngi profité gërëmaat le commissaire euh, Bokar Ly di gérer dossier boobu avec professionnalisme ndax ni mu yéegee woon information bi deux mois avant que góor jigéen yaa ngi préparé takk fukki sëy ak benn ci école Ibrahima Diouf noonu la ko Jamra yëge waaye professionnalisme moom mënoon na ko yéeg ba pare fesal ko waaye dafa ne tekk garde information ndax code pénal dafa ne boo jàppee góor jigéen balaa ñu koy mën a traduire en justice boo indiwul ay preuve nga affaire ba day nax say moo tax mu ne tekk code pénal ne boo ko jàppul en flagrant day nax say moo tax nag jour ba nga xam ne ci la góor jigéen yi war a def seen ñaawteef mu tombeeg guddi gàmmu commissaire Bokar li daal di poster ses hommes dans des endroits stratégiques ñi dañu civil ñi nekk en làqu dans la discrétion góor jigéen ñi di dugg ci école di dugg ci angaaru eh, eh, lycée Ibrahima Diouf ba fees fa dell ba tëj angaar bi commissaire bi ne tekk rek parce que flagrant délit la bëgg pour werante bañ a am mu bàyyi leen ba mu wóor ko ne tàmbali nañ seen ñaawteef rek mu joxe signal takkadeer yi naaw rek daj ji bunte bi rek bett góor jigéen ñi daw jaar ci palanteer yi waaye mbaal nañ ci presque une quinzaine kon flagrant délit am na ñu ne preuve commissaire bi ci xarañteefam fexe na ba jël fa ay robe de mariée fexe na ba am ci ay preuve am ay ay ay bague de fiançailles fexe na ba am ay dégg ay ay yooyu Ahmed Cissé naan dañ ko war a séddale si jàkk yi ay préservatif fexe na ba am ay lubrifiant ak yeneen yu ñaaw yoo xam ne mënuma koo lim te góor jigéen di ko jariñoo yooyu yëpp la commissaire Bocar li dajale waaye bu du woon professionnalisme taalibe Cheikh al Islam Baye Rahma Niass mer ba fut armé jusqu'aux dents yore seen i kuuru roof jaasi arme blanche riir wuti commissariat bi commissariat bi ci gaawaayam moo fexe ba ñu pakete leen yóbbu leen jébbal leen procureur léegi nag ñëpp a kontaan daal di ne fokk ñu sanctionné lii ndax tooñ weesuwul guddi gu tedd gu day ni diine jàmbur ñaari diine nga ñëw daal di def profanation euh, de la célébration de la naissance du Christ def profanation de la célébration de la naissance du prophète Mohammed kon ñëpp kontaan ci sanction bi waaye fu mu mujjee une semaine rek boo jigéen ñi génn di taxawaaloo ñii ñu utal leen passeport ñu dem Canada te ñi leen ko utal ñoom xam nañ leen ñii ñu utal leen passeport ñu dem Belgique ñu tasaaroo ci ci ci àdduna bi daw génn Sénégal am na ñett ñu ñàkk jom yu toog waaye dañu dañu déguisé wu xaw ma ci lan la ñu ne alors seen naataango yi daal di dem interpeller kilifa procureur mu di le ministre de la justice à l'époque Sidiki Kaba la nekk waaw monsieur le ministre góor jigéen yi tooñ tooñ bu flagrant takk say guddi gàmm guddi célébration de la naissance du Christ ci école bu tedd muy école Ibrahima Diouf nga xam ne cadre yu bari jaar nañ fa flagrant délit am ay preuve waaw lan moo des ñuy livré leen procureur ñu dégg ne bàyyi nañu te yow yaay kilifa procureur lu tax ñu bàyyi le lan la Sidiki Kaba tontu léegi ñu ngi koy naqar nee na waaw euh, article 319 code pénal bi ñuy faral di évoquer souvent boo ko xoolee eh bien niñ ko bindee amul fenn fooy gis baatu homosexuel article bi dafa ne et eh bien euh, les les les actes contre nature sont réprimés surtout loolu moo indi problème yi am yëpp ci coowu ba jigéen yi di dégg. parce que bu ñu nekk l' article 319 réprime les actes contre nature c' est vague moo tax góor jigéen yi rëcc dal di dem alors su ko defee nag tooñ yi di enchaîné wu ndax toog nañ ba 2019 fii ci caare yi la woon bi yoon góor jigéen ñi jigéen ñi ñoo jóg 25 lesbiennes wala lu ko ëpp sax parce que ñaari njaganjaay lañ fi lañ fa indi. dal di wàcc gànnaayu ak yat song benn kër di toj ardoise yi ak dajji paranteer yi ndeke benn lesbienne moo dëkk foofu boo xam ne dafa leen bàyyi gis benn ilimaan mu tuubal ko mu dellu ci néegu sëyam ak ak jëkkër bu normalam jëkkër jigéen di interposé wu comme que lesbienne yi dañu bari doole ñu song ko dóor ko ba gaañ ko bopp bi dina ci waaye Jamra ngi félicité njàmbarteefu délégué de quartier ba moo woo xale yi ñu ñëw songa lesbiennes yi police ñëw jàppale leen am na lesbiennes yu daw waaye jàpp nañ ci une bonne dizaine jour procès bi ñëpp demoon tribunal fees del parce que ku nekk da nga doon dañ kumpa ne kii lii mu def naka la ko mën a layee effectivement ba ko président tribunal bi ne ko waaye kii ci yéen la bokkoon mu xam ne lesbienne maanaam góor jigéen bu jigéen ngor bu ko diine bu ko mu ne bàyyi naa ut bu koy yóbbu ci Euh, jëkkëram góor bu normal mu delluwaat ci néegu séem normal waaw ngeen jóg di def expédition punitive te jëkkër ji xaw ne sa ñàkk ba kenam ndax fitnaal ngeen ko lii ngeen def foo leen ko de gang bi lan la ko tontu chef de gang lesbienne bi dafa xool président tribunal bi ak bëti wow koŋ ne ko waaw sama coro la woon sama far la woon kon su ma bàyyee dellu ci jëkkëram man damay considérer ne que daf ma trahir xoolal boobu sañ-sañ lii yëpp mooy loolu si Sidiki Kaba wax rek ne article 319 bi waxul homosexuel waxul lesbienne acte contre nature góor jigéen ñi dañu xam loolu xam ne bu ñu tooñee dinañ ci génn te dara du lañ ci fekk mën nañoo lim yëpp waaye bi ma ciy mujjee lim moo gën a récent dans la nuit du 23 du vingt deux au 23 novembre 2020 le le gardien de la grande mosquée de Dakar c'est un lieu de culte nga xam ne suñu boroom fonk na jàkk fonk juma ba tàgg ko ci suratul jinni masajida lillahi jàkk yi sama néeg la ndax fonk ko ñaari góor jigéen bàyyi àll bi yëpp bàyyi hôtel yeeg àll beeg lépp ñëw ci biir jàkk ju mag jooju di fa njaaloo kooku tooñ la waxuma la nag seen nattangoo bu xarañ boobu ñuy wax Cheikh Oumar Ndaw gëstu bi mu defoon quand il était euh, rédacteur en chef du journal L'As parce que moom léegi moo yore le journal bi ñuy wax Les Échos gëstu bu mu defoon ci ñaari góor jigéen yi ñu bettoon ci cimetière Soumbédioune ñuy tourner film pornographique ci benn kaw bàmmeelu nitu yàlla teggin moo tax du ma tudda turam foofu tamit fu mu mujje ñaari fan ñett ñu bàyyi góor jigéen ñi dem seen yoon waxuma la biennale des arts bu 2014 nga xam ne biennale des arts dafa nekk dans le prolongement du festival mondial des arts nègres bi fi Senghor sancoon en 1966 ñu ñëw ba édition 2014 bi yal na ko yàlla yore Mouhamadou Bamba Ndiaye daal di ma signalé ne am na ñaari site d'exposition yoo xam ne daal wax nañ ko ne am na lu ñu fay exposé daal tey na xel Parce que il y avait des exposants africains venant de la sous-région. ñu daal di taal suñu oto dem fekk boobu tam jokkoo naa avec ba ñu demee ci premier site d'exposition bi ñuy signalé fii ci rue de ñu fekk ngandim pancarte à l'entrée benn poster benn lesbienne takk ci ndigg li benn sexe tooy xam ngeen ko c'est le sexe masculin en en en en matière de latex et qui di simuler le sexe masculin di séq ak beneen lesbienne ci mbedd mi dañu teg pancarte bi avec une grande affiche une grande affiche ma première expérience en tant que lesbienne entrée gratuite ku ñëw dugg alors que Biennale des Arts li ko tax a jóg mooy ñuy fësal suñu caada jigéen ñi di wane euh, ndoket yi ak euh, ni ñu xarañee ci wàllu ciw euh, suñu mbokk la bay wane jàpp boole benn yàtt ko def ci ay forme nit wala forme malade et cetera au début c'était ça waaye lobby homosexuel yi dañu détourner objectif utiliser ko ñu jógee fa daal di dem ca beneen site d'exposition bi waaye yëpp jël nañ ay photo pour bu ñu demee wax ak ministre de la culture mu bañ a weddi deuxième site bi nekk ci euh, boulevard euh, kii mu tuddati euh, bi nekk ci ginnaaw siège yu Jamra rue 10 Sicap ci weti poste de santé Gaspard Camara foofu tamit ñu fekk ngan di pancarte poster géant grandeur nature ñaar bi bële la ay lesbienne la bii ñaari góor jigéen ñu nekk ci position boo xam ne mari day taal yi foog poster bi jàkkaarloo ak mbedd mi ñu daal di def ngan di slogan pour une meilleure visibilité gay au Sénégal boo duggee ci biir la ngay fay gis teggin mayow lu ma di ko répété fii fii à Dakar en plein festival Biennale des Arts immédiatement nag ñu ne ah lii foog ñu def alerte bu mag ndax askan yëpp yëpp ñu daal di wër ci seen naataango yi fi ñu mënee am plateau rajo wala télé yàlla dogal seen naataango bi ñoo Aminta mbay que je salue au passage moo nekk fii ci làmp Fall TV muy defal ñu benn plateau en direct oustaz Adoum Boub ñëwoon na rahmatullah ali Mouhamadou Bamba Ndiaye ñëwoon na le photographe Mamadou euh, de Walf ñëw ak man waaye invité waale nañu le directeur de l'exposition de la biennale le débat a été houleux ñu teg ko par choc ne ko yow ñu fi toowal ministre de la culture ñaari site d'exposition yi nga xam ne werante amu ci boo fa demee léegi nga gis ñaawteef ya fa góor jigéen di exposé di mepp xale yi di leen dugal ci ay musiba xanaa yëgu leen ko lan la ñuy tontu waaw xam ngeen exposition biennale des arts dafa am deux volets dafa am un volet mooy ñi nga xam ne bon la ñuy exposé wan nañ ñu ko xam nañ ko euh, que ce soit des exposants locaux wala yu jógee bitim réew mu daal di am tamit un volet off mooy exposant ba euh, la mu nar exposé kumpa lay doon ba ci jour exposition bi ci la ñuy xam la mu indiwaale ci ay bagaasam lan la ma ne ko yéen vous mettez le Sénégal en danger parce que exposant yooyu nga xam ne ay Camerounais ngi ci ay haïtiens ay góor jigéenu béninois bu fekkoon dañu indi des armes nag comme que yéen doo leen xool seen euh, bagage yi ñuy exposé bu ñu indi woon cocaïne ak drogue nag di ko fi jaay bu mettez le pays en danger débat bu tàng jër mais comme que direct la en direct une autorité di ministre de la culture daal di woote daal di adressé wu ci kooku fa toogaloon ministre de la culture nee ko adresse précise yi Jamra joxe ci site d'exposition yoo xam ne la ñu fay exposé sa naar rien à voir avec la biennale dama bëgg nga jóg dem nga tëj ko waaye ne ko waaw c'est vrai monsieur mais comme que tey la samedi date ba ma ko fàtte mukk c'était le samedi 31 mai 2014 comme que tey la samedi xanaa da ngay bàyyi ba bu lëndee rek bu ma demee incha allah waa ji ne ko déedéet demal tëj ko parce que boobu ñun on leur avait dit boo leen ko tëjul tey tey dinañ fa ànd ak suñu kuréel yi ñuy ànd di xeex

nga gis xale yi di ko def kap kaf génn école na ni xoolal ñaari góor jigéen yi jigéen ñi xoolal ko jigéen ki li muy def keneen ki loolu c'est inacceptable alors mu jëgi nag waa ji jóg dem defi li ko kilifaam wax ñu di ci sant yàlla ndax le même jour ci la ñu tëj tous les sites qui ont été pervertis par le lobby LGBT waaw ma jeexal après ma jox leen ngeen ngeen poser question alors kon nag bu mu fi nekkee di cité yëpp mën nañ fi fanaan tooñ yi du jeex moo tax nag ñun ñu ne du vivant de Abdou Latif ginnaaw yàlla defal nañu ndam ci drogue bi lëmbee woon réew mi te narcotrafiquants yi bu ñu leen jàppee ku ci am un bon avocat euh, tu t'en sors avec six mois trois mois génn di kokkali nit ñi fekk kan na suloo nga xale yi tas ay sëy yokk insécurité bi ndax drogue day teqali nit kay sagoom te ku àndula sa sago doo xam loo moom ak loo moomul ku àndula sa sago doo mën a jaamu yàlla alors ñu dem gisi le président Abdoulaye wàdd mais ko Jamra dafa bëggoon di solliciter auprès de l'État ngeen criminaliser le trafic de drogue Abdoulaye daal di ñu xaw a tooñ daal di ah loolu day assemblée nationale moo ko mën a régler latine ko ñun amuñu député assemblée Abdoulaye daal di ñu tooñ nee ñu ah xanaa ngeen góorgóorlu wàcc ci langue gi pour ceux qui m'ont toujours posé la question voilà la raison pour laquelle Jamra comme que juridiquement ñun amuñu droit wàcc ci lang gi parce que ONG lañu dañu créer sur les flancs de Jamra benn branche politique bu ñuy wax RDS Rassemblement démocratique sénégalais ci fas woowa ci waxin ci la latifié daal di def alliance avec la coalition Soppi bu Ablaye Wade ñu battre campagne xeex am député ne carax dugg assemblée. daal di criminaliser yamba criminaliser euh, cannabis bi jógee Mali criminaliser nañu lopito bi jóge Nigéria criminaliser brown bi jóge Ghana criminaliser cocaïne bi bi ñu criminaliser yamba nag. am na benn activiste bu réew saagakatu xalif généraux yi mu metti ko lool bés bu ne mu saagañu waaw ma ne ko yow ñu criminaliser yamba nga di ñu saaga kon yow euh, ko wax feeñ alors yooyu bañ ko defee tax na léegi trafiquant de drogue y a plus de six mois ki trois mois minimum dix ans la assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie pañiraam bu ñu la jàppee ak un kilo un kilo de d'héroïne parce que héroïne gramme bi quatre-vingt mille francs la kon kilo bi quatre-vingt millions la mhm. bu ñu la si jàppee benn kilo dañuy jël njëgu kilo bi multiplier ko par 3 80 millions par 3 ça fait 240 millions ñun Jamra ñoo ñoo ñoo def loolu kon dof boobu may wax te nekk ci diaspora bi naan non non c'est c'est un projet de loi projet de loi mooy lu jógee ci exécutif bi kii jógewul ci exécutif c'est pas l'État c'est une proposition individuelle de loi venant d'un député ki s'appelle Abdou Latif Gueye président exécutif de Jamra c'est la loi 2008-11 de 2000 euh, 2007 31 du 31 novembre 2007 qui criminalise désormais le trafic de drogue moo tax député député euh, naataango député sargalee ko Abdou Latif doo dégg mu ñu naan la loi 2007 31 dañ naan laal loi Latif gi bi ñu amee ndam ci loolu nag loolu jox ñu fit ñu ne deuxième étape criminalisation de l'homosexualité ndax tooñ bi bari na te du mujj fen mm-hmm. waaye année ba ca top parce que ndam lii ma leen di wax sur la drogue c'était en 2007 année ba ca topp yéen ñëpp a ngi fi woon parce que 2000 2008 euh, euh, yàggul Abdou Latif Gueye fondateur Jamra di dem benn gàmmu rek fii ci Tamba gis ngeen accident ba mu fa accidenté dajeewul ak oto 4 x bu bés pul boo xam ne rodage am sax jeexul mbëkkantewul ak garab dara ñu xëy rek ñu ne ñu dee na dee bu louche te yam Jamra yàgg na di demander l'ouverture d'une enquête ba léegi état du Sénégal nangu wala enquête ci affaire boobu parce que ba mu jógee ci criminalisation drogue jéego ba ca toppoon mooy criminalisation ngóor jigéen alors ba ñu demee nag ba 2016 te amatuñu député Jamra daal di yëkkatiwaat criminalisation drogue bi euh, góor jigéen mais amatuñu député ñu daal di xool ci député ya nekk assemblée. mu am ci kenn ku ñu doy koo xam ne appartenance politique am ça ne nous waaye suñu mbokku taalibe la dégg nga ñu bokk suñu euh, euh, suñu xadaratul euh, ahmadiya mu di le président du euh, du du conseil départemental de de, de Louga Amadou si la moom la ñu joxoon proposition de loi bi mu ne danaa ko porter mu porter ko. te porté wu ko théoriquement yem ci fexe na ba def un travail de couloir ba am quatre-vingts députés signataires que bu proposition de loi bu Jamra jàllee sur la criminalisation de l'homosexualité quatre-vingts députés ont dit à Amadou Mbéry Sylla ñun dinañ ko voter yemul ci loolu président Macky Sall recevoir ko mu jël benn exemplaire ci proposition de loi Jamra en partenariat avec le député Amadou Mbéry Sylla pour criminaliser ngóor jigéen mu jël ci benn jox ko jël beneen jox ko la président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass waaye Amadou Mbéry Sylla la mu daj ginnaaw bi mu defee cet acte de courage la mburu mësu koo daj ci fuur comme que nettali ci làmmiñu borom la daxe damay bàyyi boo leen amee occasion ngeen laaj ko ko kon nag boo leen gisee et c'est là où je en terminer boo leen gisee ñu sonn ci pour que ñu criminaliser ko c'est pour éviter mer bi nit ñi di mer ak ndax góor jigéen tooñ yi ñuy tooñ te dara du lañ ci fekk dañuy ragal mer boobu xiirtal leen ñuy fajal seen boppa te loolu wóorul et nous avons souvent cité trois pays de la sous-région jarul may wax seen tour ñëpp xam nañ ko yéen a ngi sur actualité jarul may wax seen tur pour bañ a tooñ foofu bu ñu jàppee góor jigéen amul xaar ba nga dee ñu suul la ñu sulli la sotti essence taal déedéet. pendant que tu es vivant ci lañ lay neen niip jàpp yeew def la loolu ñuy wax le supplice du collier foog ay pneu yu màgget di la ko solal di la ko solal pneu yi di yéeg ba egg ba fii ñu sotti ci essence taal ko une mort atroce loolu bëgguñu ñu am fii mm-hmm. alors moo tax nag maa ngi profité ci seen euh, ñëw bi ngeen ñëw lancé waat appel au pouvoir public lii xew euh, Kaolack bu ñu ko jàppee pëtëm pëtëmee rek tourner la page nañ si jële jàngat yi ñu si war a jële buñ ko saafarawul ëllëg dana feeñaat feneen ëllëg mu feeñaat feneen ba ba mujj gi sax xale yi àtt nañu dootuñu xaar sax góor jigéen bu dee dañuy dem songa leen pendant qu'ils sont vivants ko yàlla ndax yoon dafa tere ku fajal sa bopp mm-hmm. diine tamit tere na ku fajal sa bopp dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice soi-même waaye foo gis en Afrique partout ailleurs dans le monde aw askan jóg di def justice populaire jóg di fajal seen bopp donte le gënul alors foo ko gis rek tànk xam lu moo ko waral ak jàpp problème bàyyi ko di ko mëpp mëpp alors je je conclus moo tax nag suñu revendication lu simple la jarul créer loi mu bees on demande la réforme de l'article 319 du code pénal naka lañ koy réformer c'est très simple nañu dindi cette expression vague que de condamnation des actes contre nature nañ ko dindi daal di citer nommément les infractions ne l'article 319 condamne l'homosexualité muy góor jigéen yu góor ñi l'article 319 condamne euh, le lesbianisme mooy góor jigéen yu jigéen ñi l'article 319 condamne la zoophilie parce que janvier bi rek presse bi waxoon na benn góor jigéen bu ñu bett ci banlieue bi muy sëy ak bëy loolu am na fi l'article kon condamne la nécrophilie mooy góor jigéen yi xaar ba guddi parce que ñoom dañuy bëgg di diversifier seen i vices ñu dem corrompre benn gardien de morgue di sëy ak néew kon yooyu yëpp la ñu wax ne na ko état bi cité clairement comme ça le juge il est à l'aise ku ñu defee defeereti au parquet juge bi bu ko gisee day xool article 319 c'est clair moo xam ne kii lii la def mu teg koy daan waaye bu ñu bàyyi tant que ñu ngi bàyyi cette expression vague que l'article 319 condamne les actes contre nature li xewoon ca gàmmu Tiwaawan gàmmu euh, Kaolack mooy xewaat mooy dañ leen jàpp bàyyi leen ñu wax ministre de la culture euh, de la justice di Kaba lu tax nga bàyyi leen mu ne article 319 tuddul benn yoon baatu homosexuel dafa ne acte contre nature boobu nag la jigéen yi di jaar di tooñ jaar fa rëcc te dara du lañ ci fokk et enfin bu ñu demee na ba pexe amatul et c'est une proposition rek parce que Jamra tuuti na torop te kilifa diine yi nekk fi état bi nekk fi et ça ne peut se régler quand quand dans le cadre d'un partenariat entre xalif généraux yi ak état donc bu ñu demee ba pexe amatul Jamra ngi proposé ñu def comme diwaanu Zurich mu ngi ci réewum Suisse la communauté LGBT dafa am armeelu boppam boo fa jógee nga dem Copenhague Copenhague mooy capitalu Danemark góor jigéen ñi dañu am seen armeelu bopp coow amu fa ay kenn du ko suul fekk ñu di leen suul foofu kon Sénégal bu ñu demee ba juboo mënul am loolu rek tuuti na torop pour yëkkati ci kaddu parce que xalifa généraux yaa ngi fi ñoom mën nañu en partenariat avec l' utal góor jigéen ñi ay seen armeelu bopp comme sa kenn dootu fi ne góor jigéen bi deena na armel bële parce que coowu Kaolack bi waa ji waa ji dàq dàq nañ ko ci ñaari bàmmeel waa mais je précise bu ma kenn wax loolu ma waxul nee naa Jamra tuuti na torop pour proposer góor jigéen ñi ñu beral leen seen armeel wax naa loolu kon mu leer waaye dama ne bu pexe amatul y a deux pays qui l'ont réglé de cette manière muy la ville de Zurich bi nekk Suisse góor jigéen ñi dañu am seen armeel euh, Copenhague di capitalu Danemark góor jigéen ñi dañu am seen armeel idée bu ma sànni rek la waaye Jamra tuuti na lool mm. ndax loolu kaddu gu day ni kàddu xali généraux mm-hmm. en partenariat avec l'État ñoo koy mën a régler mais tant que solution amul mm-hmm. góor jigéen bu fi deewati di nga gis ku ñu taxaw ne kenn du ko suul si ñu bàmmeel wala kon nag loolu laa leen doon defal comme euh, introduction mm-hmm. bu ko defee nag léegi maa ngi seen disposition pour ñu mën a seq laaj ak tontu. mais lan moo tax boobu ba tey solution. Eh, eh, eh, coow bu amee ku nekk toog sa ruq rek ne sama yoon newu ci mooy tontu li la muy jur mooy le problème s'éternise parce que daawaati jéeg am na góor jigéen bu ñu fi bañ a suul daawaataati jéeg am na góor jigéen bu ñu rejeté woon armel sàngam rejeté ko armel sangam lan la mujjee toog ba 3 heures du matin mu yelleeku dem fii suñu booru kër armelu yof yi fa lañ ko mujj suul. man yéeg naa ko waaye yëg yëyuma sax yàbbi ci ça ne sert à rien. alors question hmm. dama bëgg a wax comme ni ngeen a criminaliser euh, drogue lan moo tax euh, seen combat boobu tam mënul yomb ci homosexuel. waa parce que ñun wa nettali naa la dans les détails en 2016 première tentative de criminalisation de l'homosexualité naka la euh, suñu député bi ñuy mandaté woon di Amadou Mbéry Sylla du suñu député waaye député Benno Bokk Yaakaar la waaye moom. diineem moo ko gën a ñor fuuf ay appartenance wu coalition wala parti alors wax naa leen ne daj na assemblée lu mburu dul daj ci taal ci gàttal <laughs> waaye moom moo leen di mën a wax galgal yi kuubaay yi la mu ci daj alors 2016 ba ñu demee nag ba 2021 Cheikh Oumar Diagne yàlla na ko yàlla féexal parce que il est toujours à la prison de Sébikotane moo ma woo nee ma kuréelu bi ñuy wax ànd sàmm jikko yi mm-hmm. nga xam ne c'est une coalition mm-hmm. de partis Jamra sax ci membre fondateur yi la bokk mm-hmm. presque cent cinquante partis pas seulement euh, euh, euh pas des partis mais des, organisations socio-religieuses euh, mais également des organisations de la société civile parce que ndem si yàlla si Malick Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm le coordinateur de Euh, du CIS le collectif euh, des intellectuels du Sénégal membre la ci te jiitewul tarixa jiitewul daayira jiitewul ONG islamique donc nous sommes 150 Cheikh Oumar Diagne nee ma ñoom dañu bëgg a yëkkatiwaat projet de loi bi pour déposer waat ko assemblée Cheikh Oumar nee ma nag au lieu ñu nekk fi di bindaat exposé de motifs yi day jël temps yéen Jamra loolu ngeen joxoon Amadou Mbéry la en 2016 bu fekkee c'est disponible ñu mën ko jël comme Euh, comme euh, élément de base euh, bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour defaat une nouvelle proposition de loi ma ne ko amul problème mm-hmm. jox ma sa adresse email mu jox ma adresse email ma envoyé ko waaye vous allez tous vu le résultat ànd mm-hmm. sàmm jikko yi mandaté na mm-hmm. ay jàmbaaru député yu mel ni Cheikh Bamba Dièye bu mel ni Mamadou Diop Decroix bu mel ni Mamadou Lamine Diallo Tekki maa ngi jégalu bu fekkee mënu ma lim ñëpp déposé nañ ko vous avez vu le résultat on l'a rejeté voilà xam nga ñoom la moo tax man dama wax ni et je et je bu fekkee baatu criminalisation moo leen tiital <laughs> parce que gis naa ay euh, sa naataango Alaaji Njoogu Jéen bu RFM qui est dans le piège sànq bi muy présenté journal wolof 13h daane waaw ki doon wax léegi mooy Babacar Mbuub donc ñoom criminalisation la ñu demandé woon waaye état bi tànqam lu leen voilà criminalisation daal maanaam góor jigéen bu ñuy jàpp ñu àtte la àtte ku rey nit c'est pas ça de criminalisation mooy une augmentation des sanctions pénales parce que xam nga tribinal dafa am euh, des des cours euh, ordinaires mu di euh, flagrant délit ak correctionnel voilà foofu mën nañ la tëj de un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans waaye au-delà chambre criminelle nga jëm chambre criminelle moom moo tuddoon cour d'assises tur wi changé rek ñu ne ko chambre criminelle loolu tax dañuy wax naan criminalisation moo tax nag maa ngi wax fii ne bu leen terme bi tiitale nañu jàpp expression bi Jamra di leen wax nu demandons une augmentation des sanctions pénale pour les délits d'homosexualité de lesbianisme de zoophilie et de nécrophilie xanaa nag loolu dal na xel waxatuñu criminalisation augmentation des sanctions pénales waaye le résultat est le même parce que ce qui est important c'est c'est la sanction voilà kon nag loolu ñàkk déggoo am na entre ñun ak état bi ci formulation voilà mais defe naa ba tey tardé wul parce que lii bu ko état bi réglé man ñaanuma ko mooy maire bi nekk ci xolu nit ñi surtout maire bi waa Kaolack amoon depuis 2015 te kenn fajalu leen ko ndax góor jigéen yi ñëw profaner la sacralité de cette terre sainte dal di nappaaje guddi gu tedd gu mel ni guddi lu mawludu bi def fa lu ñaaw la ñuy def te dara fekku leen ci au contraire dañ leen neexal utal leen ay passeport ñi daw dem Canada ñi daw dem feneen maire mm. moomu moo jur lii am bërk démb ñu sulli néew taal ko encore une fois Jamra condamne set acte parce que l'islam sant ko kenn Jamra condamne cet acte du diine du aada mm. waaye lii jur yooyu c'est des actes de désespoir li koy jur mooy ñu yàgg di la tànqamlu ñu yàgg di la soofantal da ngay xëy rek de mer mi fees sa dënn rek buy exploser doo xam ban côté lay jaar. ñuy félicité délégué de quartier bi góor gu baax googu te defe naa ñu ngi koy wax Omar mm-hmm. eh, def na révélation yu am solo yoo xam ne ñu ngi ñaan état bi mu jële ci ay jàngal ndax waa ji dafa doon importer des prostituées. de Gambie et d'autres pays de la sous-région jox leen fa néeg ñoom ñuy liggéey seen yu bon chaque jour prostituées yi cotiser di ko def benn versement de vingt cinq mille francs c'est ce qu'on appelle ce que le code pénal appelle le proxénétisme maanaam ngay cagatuloo nit ki mu am ci intérêt nga am ci intérêt délégué de ca bee ko wax te yàgg na fa mm-hmm. wax na leneen nee na ñiy nekk fii naan waaw est-ce que loolu la ak est-ce que du loolu nee na waa ji ci boppam moo revendiquer boppam ne loolu la mm. te moom man gëm naa ko moom góor gi parce que nitu jàkk la te affaire yu caaxaan yi jaru ko jaru jarul ko di wax lu amul voilà comme que il revendique son homosexualité foofu laa critiqué waa euh, euh, waa waa Léona dañu nekk ba jaan wi romb ñu topp ci wattat bi di dóor dañuy jouer le rôle du médecin après la mort te charia dafa ne bu leen xaar ba góor jigéen bi dee ngeen di def loo xam ne ngor bu ko dina bu ko pendant que muy dund ngeen di war a jàmmaarloo ak moom ils ne l'ont néeg ba mu dee ñu suul ko feneen ñoo ñu rejeté ko ñu dem beneen bàmmeel ñu rejeté ko ñëw seen euh, gox suul ko fa ngeen sulli ko taal ko du yoon l'islam santul kenn loolu aada santul kenn loolu loi bi tamit condamné na à tout acte d'exhumation illégale de cadavre procureur rek moo am sañ-sañ dans le cadre d'une enquête criminelle werante di am ñi naan ba mu koy rey daf ko jam paaka ñi naan daf ko tiire balu sal moom rek la yoon may ne nañ ko sulli defaat autopsie à part ça képp ku fi sulli néewu jàmbur xëtt nga sartu réew mi xëtt nga sartu sariya kon nag li leen dal ñoom mooy la suma maam yi la buy di wax toññar bi toññar bi mooy ñu tooñ la tooñ bu fës ba ñëpp ànd ak yow ne tooñ lañ la waaye malheureusement nga ñàkk sago jóg riposter d'une manière tellement disproportionnée que dañuy mujj jël toor bi jox la ko looloo leen dal a ah, góor jigéen yu nekk sa diaspora di di live <laughs> <laughs> kon daal mënuñoo wax a wax a wax ba xaraamal lu yàlla ba ba daganal lu yàlla xaraamal mhm. muy benn mhm. góor jigéen suñu borom génne na fukki fatwa ak juróom benn ne liimal naa leen ko léegi suratul uhud suratul euh, tawba suratul anfal suratul ankabut suratul anbiya yi seize fatwa rëbba leen suñu mbokku catholique yi tamit euh, téere bi ñuy wax lévitique chapitre 18 verset 22 suñu borom ne coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination kon foofu moom lay amu fa dara amu fa suñu borom condamné na leen li ngeen nekkee baaxul amul naan waaye man am naa xol bu rafet ak am naa gën déedéet suñu borom ne na mooy yées ma ñëw mooy yées ci bagage bon ginnaaw bu loolu amee yéen góor jigéen ñi ñu ngi leen di yëgal ne ñun ànduñu ci kuy sulli néew bu mu mën a doon muy ilimaanu jàkka muy góor jigéen ak waaye na nekk doomu aadama nanguwuñu lislaam nangu ko nga di ko sulli di ko toroxal di ko taal parce que suñu borom moo wax ci téeram bu tedd bi ne wala xadd karam naa bani aadama mhm. nee na j'ai élevé l'homme mhm. au grade de la seigneurie waaw l'homme la wax l'être humain mu wëlbatiku ne xalifatullahi fil ardi nee na dama jàpp doomu aadama mel ni c'est mon ambassadeur sur terre tey suñu borom ba mu ko waxee deful xaaj ak seen kon nag bu kenn jàpp nit parce que ba muy dund dafa newoon ci bàkkaar mu dee ngay ñëw di ko toroxal di ko humilier sulli ko taal ko du dëgg du yoon parce que suñu borom ne na ba muy dund boo leen amee jàmmaarloo boo leen jàmmaarloo moom def leen ko pendant qu'il en vie waaye bu xësee ba génn àdduna nee na pare ngeen seen yoon nekkatul ci moom jébbal leen ma ko man ma àtte ko